bismillah dalee na jàmm li gën a fës yéenekaay yi enquête lañu koy dooree xëtam bu njëkk moom ñi nga xam ne nag ñoo féetee ci nguur gi dañoo def rek ak bloc ngir xeex ak ñi nga xam ne ñoo Y'en a marre opposition bi ba tey journal enquête di fësal kàddu yu Mimi moom nee na opposition bi dañoo soxla ku leen jàppale ngir ñu mën a organiser rassemblement si selo di ko feelu nee na Y'en a àndul ak kenn ku dul politiciens yi nga xam ne dañu koy jox xaalis week-end wi woon na lool L'As Quotidien moom la ku bakkanam foofu ca Gendar 44 cantine moom lakk na ci marché HLM waaye ñaar fukki million ci suñu xaalis demit na ci lakk bi nga xam ne moo amoon foofu ca Kaolack populaire fësal ci xëtam bu njëkk maître Ciré Clédor Ly moom nag mu ngi naan état boo xam ne dafay foo ak justice boo ko seetloo day am ay manifestation divine te bu ñu xoolee it ba Bamba Fall ñàkk bakkanam foofu ci kaso bi dañ jàpp ne meurtre politique la mbirum Lamontin moom mii di avocat bi nee na mal gouvernance judiciaire la ko jàppee nataalu Modou Ndiaye nekk fës na ci xët bu njëkk bu Vox Populi moom nag juriste la woon waaye fi mu toll nii ferrailleur la mujjee nekk tribune yéenekaay xëyee pouvoir bi nga xam ne yàq nañu lu mel ni xeme ñi nga xam ne ñoo nekk ci mouvement Y'en a marre l'observateur ña ci activité politique yi ñu week bi ñu génn jàmmaloo doxoon na ci diggante apéris yi foofu ca kaw Kaolack police nag moo ci mujjee wis ndox bu sedd caravane Malick moom ay lacrymogène lañ leen door APR di waxaat rek ci ñi nga xam ne ñooy mouvement Y en a marre wàllum tàggat yaram assemblée générale ordinaire bi amoon foofu ci fédération sénégalaise de football maître Augustin Senghor nag moom joxoñ na baaraam tuuma ñenn ñi mu nekk ci journal bi nga xam ne mooy stade yéenekaay ba tey ci wàllum tàggat yaram Sa Thiès combat bi mu doon doxoon digganteem ak Nees moom nag daan na ko jël bu set wecc ñu jeexale ko ak Las Quotidien ñoom nag dañoo amoon rek feet bu ñu doon def ñaari xale yi ñoom dañoo sàcc seen 15 millions papa daal di koy feetoo mu nekkoon di gën a fës ci yéenekaay yi dinañ jox dig daje suba incha allah.